asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ci ndigalu Serigne Cheikh Anta Mbacke di xalifa Serigne Modou Rokhaya yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu Serigne Abo Mohamed Mbacke di xalifa Serigne Modou Mamoun ak mboolem njabootu Serigne Mouhamadou Mamoun yàlla na ñu fi yàgg lool te ànd ak wér Serigne gala Galassi la moo leen jéegal ak di leen fàttali bisub sant ak bisub ñaar bi mu baaxoo defal Serigneam Serigne Mouhamadou Rokhaya mbake mu di ko ci delloo njukkal ci ñeent fukki at bi mu tàmbalee addey Daaru Salaam ji ak ndax xam ngeen ni mi ngi ko tàmbale woon ci atum 1983 ba 2023 di ñeent fukki at mu tàmbale woon ko itam ci ñetti millions atum ren ñu jébbale ñetti téeméeri million ak juróom benn fukk ak juróom moo tax sëriñ Fallou Galassi la di ko ci sant di ko ci delloo njëkkal waaye dara jaale bis bi nag sëriñ Axma Mbàkke Tindodi moom Cheikh Mouhamadul Moustapha ba tax na mu koy yëgal sëriñ Cheikh Aliou Mbàkke di xalifa sëriñ Aliou ak sëriñ Axma Tindodi ak mbooleem njaboot gi di ko yëgal xaritam jigéenam soxna Moomi Kebe ak boroom këram di ko yëgal sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Abdoulahat di ko yëgal sëriñ Abibullahi Mbàkke ak mbooleem waa Tuubaa kanam di ko yëgal sëriñ Basiru Mbàkke Abdul Xaadir di ko yëgal soxna Assu Mbàkke moom soxna baali mu soxna Maymunatu Mbàkke di ko yëgal sëriñ Abdou Lahad Mbàkke Gaynde Fatma ak sëriñ Basiru Mbàkke Xaadim Aoba di ko yëgal honorable député sëriñ Cheikh Abdou Mbàkke Baara Doli ak honorable député sëriñ Cheikh Coro Mbàkke di ko yëgal maire bu Touba sëriñ Abdou Lahad Ka ak maire bu Mbàkke di ministre Galoba mbokk yi bis bi war a nekk gaaw ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2023 ci kër sëriñ Fàllu Galasi la ci Daaru Salaam mu ci woo mboolem jullit yi bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wala nga yaakaar Serigne Touba Cheikhul Khadim Serigne Fallou Galassi la mi woo ci bis bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.